جميع أمنم يا زغن ميمونة بنت غادم يا من جبو يا من جبي يا أمنم يا زغن ملتنة بير أدبتي كل ما إني سمنا سيقول نفاته موت مخن ويمن في لايم واجلو ري سمنا ميمن غيدم يلا نو أندك موت دم رياضو te yàlla def mboolem njaboot gi te yàlla yàlla boole mboolem barke def ko ci baale Moodu Mahfuus Mbakke ñu gudd fan mucc ci mboolem ndogi ak nabi ak luy gaare fëhraaca di ci barke Seexu Bamba ak maam Ceerno ak seeni kàngam soxna may tëflil nu amiina amiina neen amiina ci darajay muhammadul amiina amiina amiina nu wax amiina ci barke Seexu Bamba ak Maymuuna sëriñ Amar Juuf jàngkat bu mag la bu sopp soxna si tey saadix la moo ma ni tee nga jóg liggéeyal Bamba dees na un gërëm ci way Masamba tafas sëriñ sëriñ yërëm fa saasa في زائر وباطن لا باز كما يفسفز المريد يبقى أجانو كريه دجلو كريه يبقى كيف كفه كجان كان مجان ولي نجاق سبدرم دوبان يالا نو يالا ما ينجرم أكبرك دفني مريد ينين أنغول فمكي بجاي شيخ أحمد الخديم الدرجة جون ما تمي مخدوم شيخ أحمد القديم الدرجة جون ما تمي مخدوم شيخ أحمد القديم الدرجة جون ما تمي بسم الله تبارك شيخنا من جن غير خادم المصطفى المختار خدتينه بسم الإله تبارك بشيخنا من ابن طيق عالم المستوى المختار ختلنو ويري دي برمتو بعد خيب قدم تدل بدم ببلك ايام دم ويري بفينا برمتو بعد نقل نير ديكر كريد يا مبور بوري جننو بليلة القدر موتوا الكور ولمي لغان ما بسيطان ان سرنو ناني يرم جلو تيبول كيف بكو كي يغيغ قلب قلبس لقنن لقننو ما لقن في دنيا وآخرة نرياني سنگ بي نسو جنب فقونو تبول جبك سني جفنن جبك سني xol mbàkke balla defal nii ndaxte farlu faral lu mbooleen sunuy bàkkaar ci ak woyefal akum ñeewante ci weer wi xëy te jàlle na xee na nga teeyal jubal bun tilimee raxasal ban set wunu yokkal nu fan yi naatal xol dolli sunuy wërsëg mu doy sëkk tan jaamoo ko ci darajay weeru koor wi Bamba daa la xasoo di bégle tey dundle tey waare fàttewum tey tagg xayral baraaya dëwre fii abadin inda sabaayi wa fil masaayi seere alayhi salli wa sallim daayiman abadan walaayi wa sahbi eskey nun siyaare nanu saxoo durus fii muzamanin في كل وقت وحين بم فوقنا سغاد رسي كتاب الله مزمن في كل وقت وحين بم فوقنا ما دم نسد بيني نندي ونرم يالن كل قد تبودم ويري صوبنا يالن ويجي تبودم ويري يقنا دلال سني خير سرال سن خلبتك بدنو yaa nu gënal ñépp ak lépp ak lu nekk lu ne yaa gën ci nun loola yaaram man nga nun manunu weer yi di saf soppe yor say manga siini njëriñ lanuy dagaane gafak suñ xaajo far ganinu fexem jabar buy luxus buy dasiree na kafas lum ñàng-ñàng borom tuubaa ngi làqu nanu waa kasa waa ji yor wér dem di ñaana ko dog ay xaadimam ak a tariyaaxum nu gis sangenu ak lépp luy lore fii duniyaa aaxiratin min sharri famin wa aynin Mbàkke bootu nanu ci waaju ànd ak boroomam Mbàkke doy nanu far bi daf ri wal jël bi nanu ngir sant buur yàlla moo war jàmbu nekk gërëm sëriñ asal moo war nu nanu بكور بلينا بديد الخل جري ستف ليالو داولو بنتي تانا جندكنو yaaram bi wallu nu bul nuy topp yow lanu am sottil nu xéewal yi bam doy mbàkke sonn nanu astaxfirullah tum nan lépp lun masa def te muy lu neexul borom tuuba mi yor jamono te buur bi taw niiru yërmaanay njariñ ba mu doy بري من اليوم يرسن سن بدم ملنو لمنا بين باكيلو تسن بمي لا من لم غير يلي سندم دم جمنو نغون نيان دي دم سن حاجه يب بكون يلن وقل وقل يا غمدن خمونو الحمد لله رب العالمين على سيد القديم كتب يلا قتلنو الحمد لله رب العالمين على شيخ القديم كتابه يلا ختنينو الحمد لله رب العالمين على شيخ القديم كتابه يلا ختنينو ننسند الذي القدر كسات ليلة القدر لسنت ميمونة غير مو ليلة القدر nan sant yàlla fil xadar ki sàkk laylatul xadar te sant Maymunatu ngir moo fonk laylatul xadar nan jàpp kii di soxna may bu dëra dër ngir moonu may xéewal yu doy te moonu may njëriñ ci laylatul xadar nee na amul moom benn bis nee na amul moom benn bis léegi mu am mooy benn bis sama di laylatul xadar nan xam ni soxna may xadim faaxat li kulli sil li annaha bintul xadim tey waaye laylatul xadar su ngeen ma dégloo ma xamal leen ci mbiram xam koo war moonu amal lin am ci laylatul xadar soo jubee mu te soo waxee mu lum la waxit day daal di ree yeyoo na laylatul xadar yaatu ba mel ni mbambulaan tabe ba mel ni ak sayaan waa mi la wam mi na sayaan yaatal na laylatul xadar du tudd nit ki fum newul du la digil lu mu newul te nag du wax lu mu xamul te fonk laylatul xadar moo waade laylatul xadar ci amatam xasin bu wér loolaay juróom fukkuy wér ci ati laylatul xadar ganaar la togg ba mu ñor def ko ci ndam yóbbu ko kër Cheikh Fallou Mbàkke gën ndimbal ci guddi laylatul xadar bi soxna may agsee ci moom taxaw ca buntu badiri Cheikh Fallou ubbi am ca moom la ngenee li xadar Seex Fallu dal koy dagul ni lépp luy xeeti ndawal xamal ni ko di amal ci guddi laylatul xadar ne ko xamal luy ganaar danga ko weesu romb xar naka këleem dan ko defar ci guddi laylatul xadar mooy rey nag rey këleem bawul lu sax bawul lu meem jàngul quraanul karim ci guddi laylatul xadar fonk gi moo waral mu raw ngóoreel jigéen te ku mu raw dootoo ko ne moo fi raw moo fonk laylatul xadar fonk gi moo waral mu raw mbooleem jigéen te ku mu raw dootoo ko ne moo fi raw moo fonk laylatul xadar guddi gi mooy guddi gi may moona tooy sang bi gën fonk li gën mooy tax a gën moo fonk laylatul xadar fonk gi laylatul xadar may na ko barke weeru koor ne moom ci barke weeru koor lay defe laylatul xadar yàllaa ne laylatul xadar xayrun min alfi shahri far Cheikh Bamba jox ko caag ma far muy woote laylatul xadar man woodu jóob di taalu dem maa woy yi ngir ma am ab yoon bu rëy te bëgg am nga nee ni xadar ميمونة بنت القديم بقل يا علمي كريم بقل شيخنا القديم نقفاً كل ليلة القدر دمنا فاتمة بوير دمنا عائشة بوير دمنا مريم بوير فانكنا ليلة القدر جوانا أكتر القرآن جير بايبا فانكنا القرآن yàlla ko fay ci alxuraan ci barke laylatul xadar joxoon na ab jël alxuraan ngir baay ba fonkoon alxuraan yàlla ko fay ci alxuraan ci barke laylatul xadar e yàlla fay taw ba itam dafay sëriñ moodu rakam ak seeni doom ak isatam amiin ci laylatul xadar e yàlla fay taw ba itam dafay sëriñ moodu rakam ak seeni doom ak i sëtam amin ci laylatul xadar